lay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jëmalul boppam soxna jaara billahi min ashaytaan irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu uh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi uh, rawatina jàmbaare maam jaaratullahi mariam yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu àq bu baax di leen baal di ñaan sunu borom mu boole ñu jéggal di sant sunu borom bu baax a baax a baax ci euh, may gëm nu may eh, nu teewe euh, màggal gi nga xam ne mooy màggalu poroxaan euh, di màggal lu sunu borom ba màggal di ñaan ñu màggal ko màggalu jàmm mboolem ñi nga xam ne rek eh, egsi nan ñu ngi leen di ñaanal ñu suñu borom defal leen ko muy ngeen gi sàkku tuyaaba waaye mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci yoon wi di ñëw te egsee gunu suñu borom delloo ñu egsi ci jàmm eh, fekk fi jàmm waaye màggal màggal gu am solo ci eh, màggal lu suñ borom ba màggal ci jiital yi war a jiitu rek teg ci ci war a tege soxna jaara nag mu mel ne. Euh, la ciy jiitu euh, alquran la war a doon waaye xasida waaye tudd yàlla ak sant ko ak julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, di soñ sama bopp bu baax ci loolu di ci soñ mboolem samay mbokki jullit samay mbokki taalibe waaye rawatina jàmbaari soxna jaaratullahi Mariam yi fu nu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew mu mel ne ñii dañuy ñëw ñëwuk jëmm waaye ñu bëree bëri eh, am yéene ñëw te mënuñoo ñëw waaye xol bi rek moo ci am solo kon ku nekk fa nga nekk rek na nga jàpp ne eh, sunu borom moom xol rek lay xool eh, yaa ngi ànd ak nun ci màggal gi di ñaan sunu borom ba mu nangul nu nag ñun ñëpp. ci barke mbaaxu soxna jaaratullahi Mariam euh, soxna jaara nag di euh, euh, kéemtaan ci kéemtaan yi borom yi waaye ñun nag ñu am taw nekk ci moom fas yéene nekk ci moom di ko liggéeyal ci toolub lislaam bi di ñaan sunu borom ba mu nangul nu liggéey bi mu mel ne nag liggéeyal ko jot na jot na sëkk euh, ndax nun euh, ba ñu doonee ay tuut tànk ba léegi euh, mboolem kéemtaan yu nga xam ne rek su soxna jaara defoon na ko ci lépp nuñ koy waxee ci soxna jaara mbaaxam ga jikkoom yu rafet ya sellam ga jaamu yàlla ga waaye rafetal ga mu nekkoon woon ca këram ga ci rafetal jëme ci mboolem euh, ñi ko sunu borom ba booleel jiital ci euh, sëriñam ba ko sunu borom ba booleeloon yooyu yëpp euh, bi ñu xàmmee ba léegi rek ñi ci nekk di ko wax ba daanaka ñun ñëpp xam nañ loolu ne Soxna Jaara daal ku baax la woon ku sell la woon ku góorlu la woon ci diggante mag mboolem ñi ko yàlla booleeloon moo xam sëriñam ba la moo xam mbokkam yala mboo xam ñoom dëkkaloon la waaye moo xam dongo ya nga xam ne sunu borom ba moom la ko booleeloon ñëpp rek mu rafetal jëm ci ñoom kon loolu ñun dégg nañ ko ba tàyyi waaye li jot nag te jot te mooy liggéeyal ko ci li mu nekkoon li mu bëggoon te nekkoon ca te bi ñu ko gisee ba bañ ko noppee gis ci loolu rek la nekkoon te mooy eh, lislaam bi kon Euh, lim fi bàyyi mooy ñu liggéeyal ko nag ci toolub lislaam bi ñu ti ci woo ñëpp nag euh, liggéeyal ko ci poroxaan euh, buñ ne poroxaan dinañ wax jumaa ji dinañ wax kër maam jaara gi waaye nag rawatina daaraam jee nga xam ne fa turandoom ya nekk bu fi nekkoon dina leen bëgg a jàngal yar leen yor leen Euh, kon loole nga xam ne euh, moom la bëggoon te Serigne Moustapha Bachir euh, yàlla na yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem xàll xàll ci yoon wu leer woo xam ne képp koo xam ne bëgg nga liggéeyal soxna jaara ci toolu lislaam bi doo làmbut fenn foo ko def foofa rekk la foofa rekk la ci alxuraan ci jàngal leen alxuraan jàngal leen seen diine jàngal leen seen métier waaye yar leen kon looli nag ñu ngi ci woo mboolem jullit yëpp ndax jullit yëpp ci war a jàpp ndax ku defar benn jigéen defar nga aw askan kon liggéeyal sam réew lay doon bu wér a wér a wér waaye nun mbokki taalibe yi nag ñu war cee mën a liggéeyal Serigne Touba ak Soxna Jaara ci alxuraan ak diine ak yar ak ay teggin ndax ñoom ci loolu rekk lañ nekkoon kon loolu na ci ñëpp taxaw fi ne daal liggéeyal Soxna Jaara moo jot ñëpp xam nañ wala ñu ëpp xam nañ Soxna Jaara can ko yàlla melaloon te muy kéemtaan ak borom kon liggéeyal ko ci lislaam bi nag moo jot sëkk ci woo ñëpp nag mboolem jullit yi mboolem taalibe yi waaye rawatina liggéeykat yi soxna jaara yi fu nu mën a nekk waaye nag uh, loolu ku ko tudd di nga tudd daay rey maam jaara yi kon noo ngi soññi mboolem daay rey maam jaara yi ku ci nekk soññ sa mbooloo waaye soññ ci fédération bi nga xam ne dañ cee am ndigal lul Serigne Isaaxa mi nga xam ne lépp lu jëm ci fondation bi moo ko yor tem xam uh, mbooloo nim mën a amee njëriñ ci lépp lu mën a doon rawatina lu baax kon na ñëpp daw si ndax lu baax nag boo ko déggee dangay daw si da ngay njëkkante eh, balaa muy weesu kon noo ngi ciy soññaat suñu bopp di soñ mbooleem mbooleem rek liggéeykat soxna jaara yi moo xam si biir réew mi la moo xam si bitim réew moo xam fu nu mën a nekk rek nanu ñëw ñu àndandoo nos liggéey bi booloo liggéeyal soxna jaara ci toolub lislaam bi lu ko kenn mu a liggéeyal ndax man dama naan Euh, taalibe yi xajuñu ci dara waaye liggéeykati maam jaara yitam xajuñu ci dara kon nañu gaawantu nañu njëkkante ñëw ànd ak nun ci fédération maam jaara bi euh, liggéeyal soxna jaara ci toolub lislaam bi ndax xam nañ mbaa xam nga ak sellam nga ak jikkoom yu rafet ya waaye liggéeyal kon nag moo jot moo jot sëkk kon noo woo ñëpp rek di santaat nag mboolem ñi nga xam ne eh, bi ñu wootee rek ñëw nañ te mooy daayira yi maam jaara yi nga xam ne jot nañoo ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi te ma leen di tuddee man jàmbaar jàmbaari maam jaara tuddaahi mariam yi moo xam góor ñi la góor yàlla yi la moo xam soxna yi la moo xam ñu nekk ci biir réew mi wala bitim réew noo ngi leen di santaat bu baax a baax a baax a baax waaye di leen soññaat ginnaaw ba ñu soññee suñu bopp ci liggéey bu am solo bi liggéey jaarale ko ci toolub soxna jaaratullahi Mariam di ñaan nag ñu tase ceeg ngërëmam di ñaan euh, sunu borom ba wéral nu euh, kàttanal nu defal nuy xéewal ba lépp lu nu yéenee liggéeyal euh, soxna jaaratullahi Mariam ci toolub lislaam bi rek ñu am ci lu kawe kawe kawe suñu njort noo ngi nuyuwaat mboolem fédération Maam Jaara bi di ndayu askan wi di leen ñaanal jàmm bu baax waaye di sàkkuwaat ci ñoom ñaan di woo ñëpp nag ci stand bi nga xam ne am nañ ko ci eh, wetu jumaa ji jàkkaarloog jumaa ji eh, nu ñëw nag ñu daw si eh, ku ci bëgg xam dara rek ci liggéey bi nga ñëw leerlu ko waaye ku bëgg a am ci li maam jaara yi ca daara ji di defar te muy lu solo nga daal di daw si rek ci stand bi fekk fi soxna Astou Diouf soxna May ak Serigne Babacar Diop imam ah ngeen àndandoog noonu rek ñu liggéeyal soxna jaara di ñaan mu nangul nu lépp nag noo ngi jéggaluwaat ñëpp. di ñaanalaat ñëpp jàmm di sàkkuwaat ci ñëpp ñaan di ñaan suñu boroom mi nangu ñaan yi mu nangu suñuy ñaan nag ci barke mbaaxuk soxna jaaratullahi mariam jërë ngeen jëfati wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu lay teema jóg way fi ngeen jilin sewey ñoo ma jommalul boppam soxna jaara